Euh, waaw comme ni ko waxee maa ngi fi euh, ki nga xam ne moom mooy tête de liste des serviteurs ci parti bi moom mi nga xam ne ci Thiadiaye bii la wote maanaam seen euh, Thiadiaye lan moo nekk sa sentiment di sant yàlla bu baax a baax Abdourahmane ñaanal di sant suñu borom moom bi ñu permettre wax dëgg yàlla mu ngi taw waaye taw bi nga xéewal la rawatina ci taw yi nga xamante ne ko soxla donc di wax rek ne li nga xamante ni noonu la doon poursuivre processus bi ba agsi fii nga xamante ni rek aujourd'hui le jour du soutien euh, sentiment de grâce la reconnaissance ci suñu borom déjà ak volonté bi nga xamante ni ci gis la coalition des serviteurs FPR bokk ci élection bi muy yaakaar bu rëy nag euh, nga ci ci ci li nga xamante ni moom mooy ndaw li nga xam Sénégal tey teew fële nga xamante ni mooy assemblée nationale. Pape Djibril ñoo xam ne fii caagee sa fièvre la nga nekk tête de liste nationale gisoo ni gañe fii beneen affaire bi nga xam ne jëf la mën a yokk waaw xam nga ñun liste nationale la ñu jiite waaye caajaay moom ni ma koy waxee jamono ci nekk du mandat moo ñu boole caajaay caajaay li ñu booleen moom raw na mandat du élection tamit moo ñu boole caajaay loolu raw na kii fii ndono lañ fi amee boo xam ne dañ koy sàmm dañu am yitte bu mag a mag pour sàmm dañu am yitte bu mën a mën pour taxaw suñu taxaw fii a taxawal euh, a suñu taxawaay fii loolu la ci ñun ñun farata la ci ñun ndax lu ñu doon la bu weesoo loolu nag jàpp nañ ne jaajaay euh, incha allah suñu borom dinañ ko defal ndam boo xamante ni bu kawe suñu jot la parce que gis nañ ni ñu waa jaajaay liggéey seen bu seen i xol adopté def ko seen bos Euh, dañu ñoo ngi woon di dox mbokk ba daanaka une heure du matin te daanaka dañu bëggoon dal waaye da ba une heure du matin euh, nit ñi bëggoon nañu saafoonte ak ñun bëggoon nañu gisante ak ñun suñuy wéyjur suñuy xarit suñuy am di jàmm ak ñi nga xamante ni yëpp avenir avenir bu jege Sénégal euh, daf leen a intéressé donc encore une fois jàpp nañ la coalition des serviteurs MPR engouement bi ñu gis à de cette coalition là ko li a xamante ni moom mooy ci euh, parrainage bi ba fi nga xamante ni foofu la ñu agsi tey si euh, euh, ci ci campagne électorale bi ba ci vote bi wax dëgg yàlla ñoo ngi delloo njukkal askanu Sénégal gërëm ko a yi mënuñu leen dafa ci leen sant bu ko xalaatee may wax ak yow remonté ma information formation boo xamante ne allant vers ay dysfonctionnement majeur yu mën a entamer la régularité du processus ay manquement na am mais ay ay ay dysfonctionnement majeur yoo xam mën na entamer la régularité euh, jusque là en tout cas remonté ko côté woote naa am ñu ma woo xaw un moom mi nga xam ne mooy tedd list national euh, nationale bu coalition les serviteurs moom nag voté na ba pare euh, foofu ca caajaay bi mu fekk baax son bi euh, daanaka demeewul nootu moo tax ñu dagg ko dañ koy defaraat rek bu ci kanamee ñu dégteel leen lu ñu wax le temps ñu delluwaat ak Modou Fall ndax.